yéen mbokk yi topp seen site internet mourides point info tey nag ñu doxantu fii nga xamante ni si moo di Thilmakha ku dégg Thilmakha ku nekk sa xel dem ci Lat Dior fii nga xamante ni si moo nekkoon capital am tax sa tamit dajaloo fi nii dañuy def consultation gratuite ñu dugg ci biir wala li nga xamante ni si moo am ci biir. ci jublu mooy euh, dañ woote développement donc euh, ñu dëkk ci dëkk bi te ñu ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk moom moo gën donc lii nekk première pas yoo xam ne dañ ko teewgul Euh, parce qu'avant tout la santé donc moo waral ñu initier woon consultation gratuite bi woo waa tund bi woo waa dëkk bi ak képp koo xam ne rek euh, bokk nga fii donc ñu woo la euh, defal amal consultation yi comme ça mu doon loo xam ni dafa bokk ci développement daal donc loolu moo tax ñu teg première pas yi commencé loolu donc am na yeneen événement yu amaat yoo xam ne ñu ngi ci kanam donc bu tey passé suba dem aussi suba war na dem deqale incha ci musée bi nga xam ni doonoon ko defar boobu léegi ak yenen programme yo xamni amna inshallah na incha allah riba jaajëf sëñ bi tour beeg sant bi. Sekaan jaay la. Sekaan jaay wa Sekaan jaay la tudd waaw. mel ni sëti Lat Joor dañoo dajaloo te di def consultation gratuite. ñu eh. la laaj sa taxaway fi naka la. wa waaw gars wàccil ma wax dañ fi def ben consultation gratuite wa famille la jor ñom ñoko ko commencer bu ko def weekend bi yep nak mhm. man euh, dépositaire la ci poste de santé ci Thilmakha mhm. ñu invité ma fi ma ñew wara a assurer. pharmacie bi dépôt bi ci loolu la nekk ah. ah waaw c'était la Dior lii ngeen koy soog a commencé wala bii mooy seen deuxième édition. euh non bii ma je crois que bii mooy seen première édition mais souvent nag daana am mais daawul daawul mel ni daal ah loolu nag euh, ñoom sët yi peut-être ñoo ciy gën a mën a wax daal. Uh-huh. xam nga comme man invité la day am loo xam ne nii ñoom ñoo koy moom daal. dëgg la. voilà kooku ci ginnaaw moom ci sët yi la bokk. Ah, voilà. Hmm. merci beaucoup tay mom sunu téway fi moy rek mën leen jappalé ndax dañu ni dañuy def euh, récital de Coran donc wàcce kamil tek ci consultation gratuite ñu ñun tam dañu wara a ñëw teewe ko tay déjà docteur yi ñun ñu ngi top ñu ngi leen di suivre ci ki bi ci xamna yoon wé xawa xat ci ñom ñu xawa yéxa yéex ndax euh, mbour lañu ñu waroon ci suba ci donc pour yexi Bassirou Diop nag nga xam ne bii mooy la ñuy wax vraiment dëgg-dëgg ndeyu mbilli gi ñu ngi communiquer ak moom ñu ngi jokkoo ak moom pour xam fan la gaa yi toll bu ko defee ñi ñëpp ñëw ku ci nekk am fi yaakaar ñu ñaan yàlla bala boo fi jógee sa yaakaar bañ a tas waaw donc pour pour pour bisu tey bi daal donc loolu moom moo fi nekk ñuy xaar nag en attendant luy xew suba waaw. Mm-hmm. waaw mën nañ ko waxee. mën nañ ko wax waaw mën nañ ko wax déet ndax bu ñuy xool xool 1986 président Abdou Diouf defoon na fi lu nga xam li bi réew mi moo ko defoon mooy mu inauguré mausolée Lat Dior mooy fa ñu suul Lat ngone latir waaw loolu nag gëjaat gëjoon fi am dem mu dem ba sët yeeg sëtaat yi gis ni kat ñun sunu maam wala sunu mamat lim fi defoon lu mucc ayib la ba pare ñu jël ko def ko héros national nga xamni mom mo doon doon jàmmaarloog tubab bi donc jot fi def mbir yu reuy ba nga xamni bi dañ koy woy di ko ñu ni nak laaj na ñu wat garab gogu ñu gëjjo na donc euh, sokali donc ñu wat ko pour que mu ñu commencé nak bu ñu ren ñu bañati taxaw wa donc famille la Dior bi mom ñom ñep jéem nañ ci def li ñu mën pour que mbir mi mën a nekk voilà ñun nag armée nag la ñu jël très précisément mooy service bi mu lay wax direction des archives et du historique pour ñu jàppale leen ba ñu jalee ca njalbeen ba ba ba ñu yegg ca cappaandaw ga ndax bu ñu jógee fii dañuy romb fii dem déqale suba déqale it am na leneen lu ñu fa war a def ndax am na beneen luñ fa tabax lu ñuy tuddee musée fu nga xam ne bi lépp lu jëm ci Lat Joor njabootam ak ay ñoñam ndax mënul nekk pour Lat Joor kese kese ndax ñëpp ñu mu bokkaloon nga xam ni dañ daan ànd ak moom muy ay xaritam muy ay doomu xaritam ak yooyu képp ku nga xam ni kii amoon donc joué nga ci dara rek ci biir Kajoor ñu mën laa boole ci biir musée boobu prévoir it euh, teen ba ñu xool nuñ koy defarewaat gën ko wàqiwaat ba ndox ma mën a génnaat bu ko defee nit ñi mën cee mën a profito Euh, pour sax di ñu mën a tuddee euh, ndox mi ndoxum Lat Joor wala ndoxum déqale wala ndoxum Maalaw buñ ci mën a wax rek li ci am solo mooy euh, bu ñu paree loolu ñu nit ñi mën ci di barkelu xëy na sax bu paree ñuy wut ay mbuus di ko ci def xëy na bu paree ñu wut ay butéel yu ndaw di di ko ci def ba nga xam ne bi Sénégal ku nekk dina bëgg xëy na bu fi ñëwee barkeelu ci ndox moomu ñu naan ndoxu Lat Joor buy jóge ci teen bi teen boobu tamit ñun armée ku jox nañ ñu ndigal pour ñu xool nu ñu mënee defee pour wàqiwaat ko bu mu gën a xóot xool ko settantal ko yóbbu ko ci laboratoire ba xool ndax ndox mi sell na bu ko defee ñëpp ñu fi jege ak ñu fi sore mën a jot ci ndox moom. Seynabou Diop. dama don faju rek ah da nga doon faju rek mhm. mais docteur yi seet nañ la wa set nañ nañ la waaw ba may la garab wa lan ngay digal cette euh, la joor ko organiser fi cette la joor ma len wax li ñi def baax na dañ ko continuer rek hmm. na bax inshallah hmm. yene gis seen bop ci cette hmm. la joor fi ci ci cin ma waaw man sëtam laa ñu leen ñaanal bu baax waaw mhm. jërëjëf ñu ngi remercier bu baax merci dama leen di nuyu ñuy nuyu mbolom yépp yi fi nek yépp ak ñi nga xamanteni ñoko organiser euh, ñu gën ci ràññee tonton Lamine job mu dëkk Mérina Dakar ñu koy bu baax di ko gërëm oh mais boy ñu koy bu baax di ko gërëm parce que li bimu ko organiser bien que til mahal dëkk dëkk Pekes dëkk Mérina Dakar ndax am fa soxna dafa mobiliser auto ma ah, jël ko Euh, luyee ko moom ci boppam kenn fayul paas mu jël ñu ñun waa Mérina Dakhar yëpp indi ñu man Mérina Dakhar laa dëkk mu indi ñu nii am na njariñ bu nekk fii ñëw leen dem consultation gratuite la loolu moo tax kon duñu mën dul sant ko gërëm ko parce que am na solo lool pourquoi parce que nit ñi dañu feebar mais bi ñu feebaree aussi benn bi mooy dañu am ay jafe-jafe dem ci structure sanitaire yi parce que benn mooy daf leen xaw a sori rax ci dolli xam nga euh, problème yi mu am yëpp doo am ku la ku la lijjanti

wax deug yalla dina dimbali askan bi surtout Lat jor yi vraiment liñ def contane nañ ci jën ñaanal mu jëm kanam ok. waaw man andina ak euh, d' man sama bop ak ak ak sumay njabot parce que suñu euh, wa dëkk merina dakar neena la auto la ñu luyel ñu ñew kon man la ak sama mbokk. waaw waaw waaw lan ngay ñaanal sa la jor yi. waaw guddu fan ak biir yaram di leen ñaanal ñu dund ay ati ati ati at. te euh, Lat Dior xam nga héros la euh, duñu ko mës a fàtte kon lii tamit dafay bokk ci loo xamante ni xale yi nga xamante ni ñooy soog a agsi tamit dañ koy bàyyi walla xel dina tax ñu xam ko ñu gën ko xam bu baax voilà. jaajëf sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax tur beeg sant bi. noo leen di doole ziar man sama tur mooy góor Gora Sarr dëkk Mirna Ndakar di président Paradelaw nuy sant nag Lamine jóob mi nu fi indi ndax Lamine li mu defal lu rëy la ndax wér-gi yaramu nit dafa am solo lool te loolu moo tax nu ñëw fi tey e, nu ngi koy sant bu baax a baax te di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla xëcc aw fanam ba mu gën a gudd ci kattanu yàlla wéeral ko ci kattanu yàlla daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf wasalaam. man Amdi Moustapha Wade laa tudd. Amdi Moustapha Wade ñu fekk la fii nga xamante si fi la sëtu Lat Joor dajaloo tey de seen consultation gratuite bi lan fi li fi sama teewaay mooy am naa benn doom bu jege di woon quoi moom laa fi indi woon actuellement nii mais en dehors de cela bon je suis partie des organisateurs parce que lu mel ni consultation gratuite sëtu Lat Joor indi ko au niveau de Thilmakha Mbakol yaakaar yaakaar loolu am na solo. am na solo lool gis nañ ci suñu bopp lool bon vraiment ñu ngi koy rafetlu di leen ñaanal yàlla ñu man luñ def ren bu ëllëgee ñu def lu ko raw vraiment population bi yëpp kontaan nañ ci quoi waaw loolu daal la amoon waaw gis naa ne docteurs yi seet nañ leen bu baax ñu ngi leen di bindal ordonnance vraiment ordonnance euh, aussi c'est gratuit dañ koy maye waaw donc damay ñaan képp koo xam ne yaa ngi dëkk Thilmakha ak tund Thilmakha ak li ko wër rek nga ñew xol sa yaram. waaw dama leen di ñaanal jam rek jam bolo don ben bon dem ca kanam ca kanam parce que lepp luñ bëgg war nañ ko mëna am parce que sen sen tundu mbakol tundu ma xala tundu sëti la jor donc luñ fi luñ fi bëgg rek war nañ ko mëna am waaw loolu la leen di ñaanal quoi. waaw cilmaxa ca kanam rek quoi. mu sow. Wow, Sow maam ñu fekk la fii ngay faju ci sëtu Lat Joor dañ organiser consultation gratuite bi hmm. lan nga doon faju fii maam Mana yaram muy metti ak bët yuy lëndëm waaw waaw mais docteur yi seet nañu waaw seet nañu ma ah, bu baax garab gratuit waaw waaw jox nañu ma garab ah, looy ñaanal ñi nga xamante ne si ñoo ko organisé di sëti Lat Joor ah sëti Lat Joor Sama samay bokk lañu ndax maa ñooma dëkk fii dégg nga maa ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam mm-hmm. gudd fan ak wér gu yaram nu yàgg fi lool tey jëriñant waaw loolu maa fi ñëw di faju fi laa dëkk sama set nag laa jëli fee indi fii ñu jox ko waaw maa ngi ci ndiyam ci fi ngeen di jàdd dem ca kër Lat Joor waaw foofu laa dëkk hmm. ah, dañoo ñëw rek pour xool suñu yaram rek ah, da ngeen a xool dara métti wuñ de waaye xam nga parfois boo toogee moom waa nga dem xool sa yaram ba xam lan moo ci nekk rek. bu mel ni sëti Lat Joor yi fii nga xamante ne si moo nekkoon capital la Joor ndax sëti Lat Joor yi leen fiy organisé yéen a ngi ciy gis seen bopp wala li bi mooy c'est la première fois. ah parfois rek ñu gis suñu bopp de waaye yenn saa yi moom dana am loo xam ne du egsi ci ñun daal. Hmm. Hmm.